Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba di maxnaam dax ku dem duy soobu ni mes bu génne xam-xam boroomam auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal fii ci seen chaîne bi di GMT TV muy chaîne bi nga xam ne moo ne fii ci jumaay Cheikhul Xadim radiallahu anhu ji ne fii ci Touba muy chaîne boo xam ne daayiratu muqaddimatul xidma ñoo koy taxaw di seen boo xam ne li ko tax a jóg rek mooy li tax a jug daayira bi te mooy liggéey Cheikhul Khadim fii nag ñu di fi liggéey lu jëm ci tasaare njàngaleem sëriñ bi ci ay jotaay yoo xam ne dañu koy séq ak yéen lépp loo xam ne dafa yitteel jullit bi yitteel taalibe bi ci ak dundam fii ci àdduna ak lu muy waajale ëllëg jotaay bii di benn ci yooyu ñuy def ni ngeen ko xamee muy jotaayu murit gi incha allahu taala ci biir waxtaan wi daañu ci dugg waaye bala ñoo tàmbali waxtaan wi nag ñu ubbee ci li nga xam ne moom la ñu war a ubbee lépp te mooy ñaanal Maulana Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides suñ borom yàggal ko fi defal ko kàttan defal ko wér dolli ko barke dolli ko xéewal ba mbooleem liggéey yi nga xam ne daf ko bëgg a liggéeyal Cheikhul Xadim radiyallahu anhu yépp mu àggale ko te defee ko ni mu ko bëggee incha allahu taala bu loolu jàllee nag euh, waxtaan wii jotaay bii di jotaay boo xam ne mooy jotaayu murit gi murit gi nag bu ñu bëggee def jotaayu murit gi dana baax bala ñoo ko dugg ci loolu ñu wax ci murit gi ci boppam mooy lan kon mën nañoo jàpp ne waxtaanu tey wii day jëm rek ci laytaayu murit gi mooy lan doogu dugg ci waxtaan wi muy waxtaan yoo xam ne incha allahu taala fas nañ yéene weer wu nekk le treize ci weer wu ne ñu amal ko séq ko yéen ba bañ koy mën a yokk incha allahu taala di ñaan rek suñ borom def ci tawféex def ci njëriñ def ci barke ñun ñëpp ñu daje ci ngërëmul sëriñ bi incha allahu taala ci sant bu baax i daayira bi nga xam ne ñoo ko taxawal muy daayira Muqaddimatul Xidma te ñaan suñ borom nangul leen seenu liggéey te def ci barke ñu koy ànd ak ñoom ci njiitul sëriñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci loolu mu doon waxtaan woo xam ne noonu ma ko waxee ci murit gi la jëm euh, dinañ ci waxtaan ci yooyu yëpp euh, murit gi nag bala ñu waxtaanee lu jëm ci jotaayu murit gi dina baax ñu wax murit gi mooy lan murit googu mooy lan dëgg-dëgg murit gi mooy lan murit gi ci ku ko xamut mooy yoon woowu nga xam ne Maulana Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moo ko xàll ci biir lislaam muy gisin bi nga xam ne ci la ñëwoon ngir liggéeyal ci diine ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy murit gi bala ñoo dugg ci murit gi lu mu dëgg-dëgg it faa ñu wax kon Cheikhul Khadim moom mooy kan muy koo xam ne ñëpp xam nañ ko waaye xamle bi it kenn du ci doyal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu turam dëgg Bamba Mbàkke muy borom xam-xam di yàlla gu mag dëkk ci réew mi ñuy wax Sénégal mu doon koo xam ne it mi ngi cosaanoo ci ñaari askan yu tedd yu màgg muy Mbàkke ak Mbusoobe di ñoo xam ne ñu ñu xamoon démb ak bërki démb la ci liggéeyal lislaam ci liggéeyal dine ci ngor ci mbaax ci jikko yu rafet suñ borom tànnal ko ñaari askan yooyu mu génnee ci moom seriñ bi euh, mu doon ñoo xam ne it mbooleem ñi gëstu ci seen démb ñëpp gis nañ ne ay shérif lañ ci ay sët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañu bokk sëriñ bi génnee ci ñaari askan yooyu bi mu ganee àdduna it ganee àdduna ci waajuram wu woo ci kër waajuram wu góor woowu di sëriñ Maam Mor Anta Sali Mbàkke doonoon boroom xam-xam bu mag ci jamonoom koo xam ne ñépp xam nañu ko mu jaar ci moom bi mu waree dal jàng sëriñ Mor Anta Sali jox ko nijaayam sëriñ bu soobee mi nga xam ne mook soxna jaar waajuram mu jigéen ñoo bokk lépp kooku dalal ko jàng jébbal ko maamam ju ñuy wax Tafsir Mbàkke Ndumbe sëriñ bi jàngee ci moom alxuraan ba ni ñu jugee bawal dem Saalum ci jamonoy yi wooteeb imaam ma bu jaxuba bi comme ni ngeen ko xamee rek loolu du ñuy taxaw bi mu tollee foofu bi fi Tafsir jugee mu dellu ci waajuram sëriñ Mor Anta Sali ak lefam njàngam ginnaaw bi dem na ci euh, waajuram koo xam ne baayam ju ndaw la ñu koy wax sëriñ Samba Tukulóor Ka jugee fa fekk si waat waajuram sëriñ Mor Anta ci Kajoor ndax fekk na mu demoon Kajoor fekk fa nekk ci moom ak lem njàngam ci moom ak boroom xam-xam yoo xam ne nekkoon nañ ci digdigal boobu euh, ñii dañ ko daan jàngal ñii dañ daan daan gëstonteeg ñoom ba ni mu mujjee nekk moom sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu di boroom xam-xam bu mag boo xam ne euh, mboolem ñu ma jamonoonteel xamoon nañ xam-xamam bu rëy ba ci nekk waajuram sax àggoon na ci taalif ay téere téere xam-xam yu am solo yoo xam ne waajuram demoon na di ko jàngal ñenn ci ak njabootam ak euh, jéego bu sori boo xam ne teel na ko am ci wàll gi ci wàllu xam-xam te lépp doon ci ndigalul doon ci ndimbalul suñu borom euh, subhanahu wa taala bi mu demee noonu moom sëriñ bi ba am njàngam àgg mun ko waxee noonu mu wéy nag ne ci daara ji ndax waajuram ni ma leen ko waxee xam ngeen boroom xam-xam loon bu mag sëriñ bi ne ci wetam di ko jàppale ci njàngale mi di ko jàngaleel ba mujj féetewoo daara ji sax nag di ko liggéeyal ci anam googu ko jàngale ci daara ji sëriñ bi nee na mu doonoon koo xam ne it ñëpp ci donga it xeroon nañ loolu ci bëgg mu leen di jàngal ndax laa biir gi ci moom ak macha allah ndimbal gi ko suñu borom defal ba ay mbiram am njàngaleem leer gum leer ak barkeel gum barkeel mu wéy ak ñoom ci daara ji ba ne fi waajuram jugee sëriñ Mouhamadou Sali moom sëriñ bi Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu mu wéy yore daara ji di jàngale nee na sax ginnaaw sëriñ Mouhamadou Sali neen na fa xëy war a mat am at di wéy di jàngale ci noonu la moom sëriñ bi diggante boobu yëpp muy wéy di jàngale di jëf-jëf yu baax sax ci jaamu yàlla di sàkku ngërëmul suñ borom ci anam gu mu ko mënee ni mu wéyee ci noonu di jàngal taalibe yi waaye nekk sëriñ buy jàngale noonu rek nag waaye lu jëm ci ay woote aw yoon ak yooyu yëpp defagu ko sëñ Bachir nee na muy wéy ci noonu di wéy di wéy waaye teewul diggante boobu yëpp it ñi ko xam ñëpp wax nañu ne daana junju lu mel ne woote bi muy woote léeg-léeg rek mu mu ñu jox ko téere mu jàngal borom ba noppi daan ne lii de am na solo lool doomi soxna nitug diine ku bokk ci askan wu ñu xam ci xam-xam dem ba àgg foo xam ne mën naa toog téere bu ñu ko indee mu jàngale ko loolu de lu am solo la waaye nag am na lu ko ëpp solo jamono jooju ñi ëpp ci nit ñi li ñu xamoon mooy xam-xam bu ñu ko waxee ah loolu de jaaxal nañu lu mu war a doon mu ne leen loolu mooy euh, lii tax ba. boo toogee xalima gi nga xam ne mooy bind ci lawxul mahfuz buy bind yëngatu ba muy yëngatu nga di ko dégg la lay may loola loola moo gën lii ñu ne muy njàngum kese boobu mi ngi leen di junj rek ne am na leneen lu gën a kawe loo xam ne xam-xam ñu sàkku yépp du ay fin ay ay ay ay du ay du ay du ay du du yeen jublu dëgg-dëgg waaye ay jumtuwaay la rek yoo xam ne dañ ciy war a jaar ngir wuti leneen te mooy sàkku ngërëmul suñu borom gi nga xam ne moo taxoon ñu wàcc fi doomu aadama yi muy sàkku ngërëmul yàlla leneen luñ fi gisaat ci diggante bi rek lu doomu aadama war a def yóbbal la ngir sàkku ci ngërëmul euh, suñ borom moomu subhaanahu wa taala suñ ba si neen mu wéy ci noonu ba ni mu xëyee nag moom sëriñ bi ndigal jóge ko ca kaw nag la suñ Basiir di wax naan ilaa an fuuja bi amrin bi amrin al an yu rabbiya waaw ba ndigal lu kaw ndigal jóge ko ca kaw nag ci suñ borom jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu jox ko ndigalul nag ne ko ne ko mën ngaa woote kon foofu ñu ngi agsi ci tomb yoon wi kañ la sosu ak ci nu mu sosoo yoon wi mi ngi soso ci dëkk boobu mooy wax muy Mbàkke Kajoor nga xam ne waajuram sëriñ Mor Anta Sali moo ko sancoon ginnaaw bi mu fi jógee ba am am at jamonoy 1300 ci mujj gi jàpp 1301 ci la sëriñ bi woote yoon wi li gën a siiw sax li gën a siiw ci ñenn ñi mooy ci mujjantalu weeru koor la woon bi sëriñ bi jotee ndigalul suñu boroom loolu ñu wax ko nag ne léegi rabbi asxaabaka bilhimma wala turabbihim bi darsi faqat wa rabbi kulla waxidin minhum bi ma yaliqu bi sa gaa ñii nag léegi bul yamati ci jàngale rek waaye dee ci boole léegi yar dee ci boole yar mooy lii nga leen doon jàngal lañ ci jubloon mooy ñu jëfe ko fexeel ba di leen tàggat ci loolu ci ñu di ko jëfe ñu di ko meloo di ko jikkoo kon léegi am na lu bees lu dugg mooy la taxoon ñuy jàng léegi daa war a bokk ci njàng mi sëriñ bi sañeetut nekk rek koo xam ne jàngale bàyyi ñu dem léegi léegi dafa am ndigalul bu jàngalee tamit na yare boole ci mu daj sëñ la Lamin ne na mu dajale ñëpp jox leen jottali leen xibaar boobu mooy jot na ndigalul na woote xam ngeen loolu sëriñ bi bari na fu mu koy junj ci mbindam eh, wax ne eh, amarahu salla alayhi llaahu fi laali wa sahbi wa man walaahu bi an yurabbiya al muridina wa man yaqbalu minhu nusha min ahli zaman yonent bi salaa sallam moo ko jox ndigal ci ne ko kat na yare na yare mboolem murit yi nga xam ne fekk si nañ ko ak képp ku bëgg lu baax képp ku nangu rek képp ku nangu sëñ bi gaal la guy dem nangu na ñëw yegg loolu lay wax naan nazali walaysa minni o wa inna ni bihi himun wa mafzao zalika fadlullahi yutihi allazi yashauhu wa xaala bi xulbi luse ne suñ borom moo ko bi mu ko mayee yooyu mu ko may yépp ci ay teraanga ak i may ak i mbaax ak i ngëneel moo ko jox ndigal nag ci ne ko nag wooteel nee leen man kat làquwaay laa muccukaay la weeruwaay la ku bëgg mucc na ñëw yéeg ñi dem waaw loolu la man Mame Lamine di firi gis ngeen ko ci ci ci irwaaw na di mu ne sëñ bi wax ne kat man làquwaay laa weeruwaay laa muccukaay laa ku bëgg na ñëw ñu dem ay euh, bi amara amarahu bi an yusarriha bi annani bi an usarriha bi annani mafzaun bi annani malazun waximan wa mafzan fa man arada al xayra fi kiltay daarayni fal yalus bi ku bëgg a mucc àdduna ak àlaaxira na ñëw làqatu ci man ñu dem sëriñ bi daal di woote woote boobu sëñ Mate Lamine nag nee na bi ko sëriñ bi wootee ña fa nekkoon ci daara ji ñëpp dañoo daal di dem nag dëgg nag ndax li leen fi indi woon mooy sàkku xam-xam te sëñ bi dugal na lu bees lu ñu xamut bi mu leen di wax it mooy képp koo xam ne jàng képp ko fi indi woon yeewi naa ko mën naa dem am na leneen lu ma bëgg lu gën a kawee am njàngom kese nag kum jaral ñëwal ñu dem ba pare daal jiitu nag te gestuwaatut benn yoon ba tey jii sëriñ bi gestuwaatu leen ñu diglu ko xëccoo ci seen biir maanaam xel yi jax-jaxe ñii ne dañuy dem ñii ne dañuy toog suñu mat lami ne nag xata àll amru ila zahabil julli wa baqa il xul ñi ëppoon ca daara ja nag daal di dem ndax wax dëgg loolu indiwu leen fi woon te xamuñu ko it nag bañuñu ko waaye dañ koo xamut nee na ñu néew ñoo fa des ñu néew ñoo ñu fa desoon nag ci ñoom la murit gi sosoo di dem di yaatu di yaatu ba suñu borom baaxee ñu ñun ñii ñëpp ñu bokk ci biir yoon woowu ci ngëneelu suñu borom ak mbaaxam rek ci noonu la sëriñ bi wootee yoon bi ci Mbàkke Kajoor kon euh, kon loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy taarixu woote bi euh, ginnaaw wax nañ ci taarixu woote bi kon danañ wax sëñ bi loolu mu woote lan la loolu mu woote noonu lan la lu mu li mu woote du lu bees du lu bees lu fi sëriñ bi indi lu mu fa fekkoon la rek mooy li mu fekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci gaa ñu baax ñu jaar ci mu demoon ba commencé yu ci bokkul di ci dugg yu ci bokkoon ñu di ko ci génne ñëw ngir raxasaat ba mu set ne nit ñi ay ay ca ñu dem euh, bi mu ñëwee moom sëriñ bi Euh, xam ngeen li sëñ bi woote lépp am na fu mu ko tontu ndax am na kenn ci tubaab bi ku ko laajoon lii ngay woote nii lan la sëriñ bi ne ko ussu tarixati al imaanu bi tawxid wal islaamu bil fiqhi wal ihsaanu bi tasawuf ne ko ñett yi yi may woote loolu képp la mooy lislaam ju mat sëkk rek bu ngeen delloo ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seydna jibril bi mu ñëwee fekk ko mu toog tam ko doon laaj yore jëmmi nit xadis boobu nga xam ne seydna omar radiallahu anhu moo ko nettali di ko laaj eh, ñëw nee na benn waay dañoo toog ba yàgg rek benn waay ñëw sukk ci kanam yonent sallam ni murid yi sukkee nii banque ay tànkam sukk ci kanamam ne ko yow Muhammad lan mooy iman nee na jaaxal nañu ndax kii xamuñu ko ci dëkk bi te niñ ko gisee bu ne mën naa ko misaal mooy yére yi rasut wala dara bañ bañ ba rasut ba ñu jàpp ne kii fi mu jóge jóge na fu sori kon mu jóge soriwut waaye kenn xamu ko ci dëkk bi it nag mu ñëw ba sukk ci kanam yonent sallam banque ay tànkam ne ko axbirnii anil iman gëm yàlla mooy lan yonent sallam commencé gëm yàlla mooy nga gëm yàlla gëm ay malaayikaam gëm ay yonentam lim lim lim bi mu limee ba pare nee na Seydina Jibril ne ko waa ji ne ko ne ko wax nga dëgg na loolu nag jaaxal na ndax da koy laaj bu ko tontoo mu ne ko wax nga dëgg bi mu laaj yu bari yem ko laaj iman islaam ihsaan moo ci jiitu muy yi sëriñ bi wax ne mooy yoon wi ba mu demee yonent bi salaam ne saxaaba yi ndax xam ngeen kan la ñu ne dee mun leen Jibril la dafa ñëwoon ngir xamal leen seen diine mooy laaj bu ko laaj yonent bi tontu ko sallallahu alayhi wa sallam yi xamee ko ci sëñ kon loolu la woote muy yoon wi yoon woo xam ne lislaami kese la ko di ñi ci ëpp ginnaaw bi bi ñu jàngatee gis nañu ne it ñu delloo ci mbindam ak lim jëf yoon wi am na ay principe yoo xam ne ci la samp mooy al al al ilmu saxiix al ilmu naafi wal amalu saalix wal adabul mardi xam ngeen yéen sëriñ bi sax mi ngi koy wax euh, al umur ala salaasati aqsaam al ilmu naafi wal amalu saalix wal adabul mardi ne mbir mi woote bi yëfi lépp génnul ñett yooyu xam li nga war a xam xam-xam bu am njëriñ jëf-jëf ju baax ak sax ci ay teggin yi nga xam ne moom la ñu xamee lu tasawuf ne yoon yi gën a gaaw ci yu mën a àggal ndikk ci suñu borom mooy mu jaar ci yoonu tasawuf kon loolu mooy euh, jëmmi jëmmi yoon wi ci ak tënk euh, bu ñu jugee ci loolu kon yoon wi loolu mooy loolu ki wuy si ci biir yoon wi moom la ñuy woowee ab murit mooy muritu Cheikhul Xadim donte baatu murit mën naa firi leneen murit boobu sëriñ bi xamal nañu ni muy mel bu ñu delloo ci mbindam bëri na fu mu koy xamle euh, wasful muridi tarkuhul irada li wajhi man yafalu ma arada ne murit niñ koy xamee mooy day bàyyi ak bëggam ci lépp ngir bëggu suñ borom gi sàkku lu lu ngërëmu ngërëmu suñ borom euh, ngërëmu suñ borom rek lay sàkku ci lu mën a nekk man lam yuri shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu te ku bëgg lu dul yàlla suñ borom dina ko dina ko gàttan te dina ko dimbale euh, murit kooku it daa am murit bu ci gënal sëriñ bi muy li muy wax mu al muridu sadiq muridu sadiq sëriñ bi jàngal nañu ay melo ñeenti melo bëgg sab sëriñ bëgg gu wér sax ci ndigal te di ko jëfee bañ a diingat ci dara sa lépp nga jébbal ko sëriñ bi ñeenti jikko yi la sëriñ bi wax ne murid saadix noonu lay mel wax ne it ne ku ci sax danga àgg ca ca ca njobbaxtaan nga ci mbaax ak ci ngëneel ak ñu may ci suñu ak may suñu borom wax ne képp ku ci sax rek euh, di nga àgg ci ci ci loolu xam ngeen sëriñ bi sifaatu saadixil murid ba mu jeex ci mujj gi mi wax naan fa kullu man jamaa hazihi sifaat minal muridina fa yudriku siqaat képp ku sax ci ñeenti jikko yi da nga àgg ca fa gaañu baax ñu àggoon kon sëriñ bi loolu la wootee muy murit gi foofu la ko wootee muy ci Mbàkke Kajoor loolu la wax ne moom la muy lislaam yi kese principe yooyu ci la ko sax ci la ko ci la ko samp muy ñetti mbir yooyu murit bi sëriñ bi soxla it mooy murit boobu nga xam ne sàkkoo lu dul ngërëmu yàlla buy jaamu yàlla buy jëf lu baax buy liggéeyee lu muy def da cay sàkku ngërëmu suñu borom ki nekk ci atelier di liggéey sax day sàkk lu mu ci amee ba delluwaat ko ci delluwaat ko ci yoonu yàlla delloowaat ko ci jaam yàlla yi nga xam ne ñi nga tàmbalee ci ak njabootu boppam sëriñ bi loolu jàngaloon ah, njaboot gi wow murit googu mu leen woowe digg na leen ci yu bari bokk na ci lim ci wax ah, wax ne bépp murit boo xam ne wuy sinema aju ci man suñ borom dina ko musal àdduna ak alaxira li kulli man biya taalaqa najaa min kadari dunia wa fi yawmi najaa képp koo xam ne aju na ci man dana mucc ci nax-nax yi nax-nax ak jafe-jafe àdduna yu alaxira yi dana ci mucc incha allah kullu muridin bi yaluusu wa innahu min al aza mubaadu bépp murit bu aju ci man dana texe ba faw te lépp luy ak texe di lépp luy jafe-jafe lépp luy naqar suñu borom dina ko soril àdduna ak àllaaxira kon ci gàttal loolu mooy murit gi loolu mooy melow murit loolu la sëriñ bi dikk ñi nga xam ne wuy si nañ ko te sax ci li mu leen digal ci jotaay yi di ñëw nag incha allahu taala dinañu gën a yaatal nag ci murit gi léegi ginnaaw tey wax nañ luy luy luy murit gi nag yi di ñëw ñu dugg ci jotaayu murit gi nag danañ ko dugg ni niñ ko waxee woon ci njàngaleem sëriñ bi mu yi mu bind yi mu wax yi mu jëf yi nga xam ne da cee yar mbooloo mi nga xam ne wuy si woon nañ ko ñoo ñu it yi ñu jëf danañ ci mën a del si di ci waxtaane kon muy doon waxtaan wu yaatu woo xam ne rek incha allahu taala mas nañ ko yéene seq lépp rek jëmaat ci liggéeyal sëriñ bi incha allahu taala ñu ñaan suñ borom defal ñu ci tawféex te ñu daje ci ak ngërëmu sëriñ bi kon loolu moo nekkoon jotaay bi nga xam ne moom la ñu doon amal tey mbokk yi muy bu njëkk bi di leen jox dox daje incha allahu taala ci yeneen jotaay ci seen chaîne bii di GMTV muy chaîne bi nga xam ne moo ne fii ci jumaay Tuubaa ji euh, jumaa ju mag ji te daayiratu Muxaddamatul Xidma di ko saytu ci ndigalul sëriñ bi mun Muntaxa Mbàkke ñu ñaan suñ borom yàggal ko fi defal ko kattan defal ko wér ba mbooleem liggéey bi mu bëggee a liggéeyal Cheikhul Xadim yépp mu àggale ko ci ni mu ko bëggee incha allahu taala daje ceel ngërëmu sëriñ bi euh, di leen jox dox daje incha allahu taala ci jotaay yi di ñëw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ñu bokk ko fol tofol kol gërëm mu fa kon ñu wa matu yi jox ko mu jox boromam di kenn ku ñëpp xam di bay bay sëriñ sa mu fa di bi janti ci ci bu duniya di taalif ci sell boromam